pas. merci président xam naa monsieur le ministre ñu dellu si waat rek xam naa bi ngay tontu si sa biir wax lim nga euh, les hôpitaux yi nga xamante ne créé nañ ko mooy euh, structure de santé yi nga xam ne créer nañ ko yëpp yooyu yëpp c'est bien mais damay insister waat ci li ma waxoon tout te bu fekkente ne yi nga xamante ne existé na ba pare toppatoowuñu pour moyen ya fa nekk mu nekk fa day indi gën a day gën a indi problème ndax problème de santé bi bëri na grève yi bëri na ñu ngi koy wax sànq personnel yaa ngi grève ñooñu ñëpp bu ñu leen satisfairul je pense que euh, dinañ continuer di am ay plaintes ci biir hôpitaux yi euh, population bi di di révolté wu wala di ñaxtu te du seen faute ñoom ñi nga xamante ne ñoo fay liggéey c'est parce que ils ont pas les moyens nécessaires pour résultat bi nga xamante ne moom la ñu war a joxe population bi gis ci seen bopp ñu am ko donc loolu ñu ngi ci insister waat bu baax ngeen def évaluation boo xamante ne dina permettre structure bu nekk la mu war a doté wu la mu war a am ci moyen ñu joxe ko loolu du yem rek ci structure de santé yi même ministre yi fi jaar seetlu nañ ne des fois bu ñuy wax seen budget yi dañuy souligner ay contraintes d'ordre technique ou budgétaire te koo xamante ne dafa war a euh, développer mettre en œuvre sa politique su amee ay contraintes technique contraintes budgétaires kon li nga ko dénk pour mu liggéey ko mu jëm ci askan bi du ko def donc loolu aussi il faut ngeen bàyyi ci xel waxoon naa ko fi suivi évaluation suñ la dénkee benn mission ci benn structure nañu fexe ba moyens yi mu war a am pour doxal mission boobu ñu fexe ba mu yemb loolu moom may tax budget bañ ko jox mu def ko ci biir population bi ba réussir mission boobu beneen bi may wax day dellu ci entrepreneuriat on pour les femmes pour les jeunes waxoon naa ko fi def nañ aussi financé nañ leen aussi ba ñu taxawal seen entreprise PME yëpp taxaw na mais li fi génnoon ci plénière yi mooy viabilité de ces euh, PME là ñu bëri dañuy dem ba fay li koy waral nag mooy d'habitude dañuy manqué ay équipement yu compétitif yoo xamante ne dina leen permettre ñu mën a euh, liggéey liggéey normalement am ci résultat loolu aussi ñu ngi leen di ñaan pour que équipement moderne yooyu ñu war a am ñu fexe ba mu yem su ko defee ñu mën a compétir par rapport ak seneen yeneen naataanoo yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk suivi accompagnement bi donc day baax foofu pour que euh, entreprise yooyu ñu bañ a faillite je ne saurais terminer sans pour autant remercier toute la population yi nga xamante ne ñoom ñoo ñu tànn ñu représenté leen fii ci hémicycle bi je rends un grand hommage aussi à notre responsable de parti Seydou Mouhamadou Moustapha Sy di ko ñaan gudd fan ak weer je vous remercie